ñaareelu grève ñeel liggéeykat yu fare ci mairie yi Sénégal gannaaw bi nga xamante ni nguurug Sénégal daal na xaatim ab décret ba léegi ñuy xaarandi yooyu la application ñeel boobu la décret. waa grève bi de arrêté gul parce que boo seetloo Sénégal dafa am la nga xam ni dañ koy duma ni sax dañ koy caaxaane parce que boo seetloo nguur gi muy euh, état bi mi ngi ciy def jéego yu bari. parce que tey euh, état civil kuy waxal yàlla xam ni nguur gi def na ci ay jéego yu bëri ci avec euh, modernisation état civil ak lépp mais xam nga mbir boo ko moderniser def lépp ba pare te liggéeykat ya fa nekk sentir ñu si seen bopp amul solo état def na ay milliards et milliards ci état civil kenn du ko weddi nous avons pratiquement un état civil au Sénégal très dynamique qui répond aux normes maanaam état civil ba nga xam ni dynamique na mi ngi répondre ci ñoom waaye boo defee loolu ba pare teg boo ko xasee teg ba pare dafa am la nga xam ne dafa am solo ñu koy wax moom mooy liggéey liggéeykat liggéeykat bi dafa war a motivation am satisfaction bu amul motivation boobu wala bu amul loolu nga xam ne moo koy tax mu liggéey amaana liggéey bi dem parce que bu ñu fàttee loo defar defar defar moderne def lépp nit a koy defar nit a koy def ay machine bu ñu teg teg teg teg am na fa xam ne àgguñu fa am na xam nit koy def waaye nit kooku tamit boo ko tegul fi nga ko war a teg day feeñ léegi nag euh, ñooñu nga xam ne ñooy travailleur ñuy liggéey état civil amoon na ay doléances suñ doon kaas di ko kaas di ko kaas ba président de la république génn décret noté avancement yi def lépp ni ñii dañuy am avancement dañuy am lii waaye ñu xëy aussi itam loolu appliqué wuñu ko je pense que loolu moo indi xeex bi pour ñu appliquer li nga xam ne avancement yi la tey kuy waxal yàlla ku gis population bi nii mu sonnee pour am këyit xam ne ñii nga xam ne ñooy liggéey ci état civil yi neexul ba neexul dañ leen war a teg fi ñu leen war a teg dañ leen war jox cër bi ñu war a jox mooy Sénégal rek dañu wax travailleurs yi ñu war a gën a mën a satisfaire wala war a jàpp xëy na dañ koo jàpp looloo mooy indil léegi. bari est-ce que nga yaakaar ne neex na man mii man bëgg naa kayit man maa ngi jógee juddoo euh, principal hôpital principal de Dakar tey bu ma bëggee kayit bu dul grève sax su ma bëggee kayit une semaine laay def pour am ko imaginel bu grève amee soxla naa sama extrait maa ngi Euh, passeport ou leneen la nga xam ne tey dañ may laaj extrait mais maa ngi liggéey ci mairie bi mais mënu am sama extrait est-ce que neex na dama koy xalaat ci man xalaat ko nag ci ka nga xam ni fii rek la am pour ñëw fii mënul jot kayitam bari na bari na ñu ci loolu gannaaw mais mairie Cambérène nag foog ñu xam dara euh, même inhumation fii boo ñëwee dañ la koy defaral inhumation moom dafa maire dafa den la nga xam ni lu mu teg bakkanam la ku ñëw soxla loolu day ñëw ñu dem parce que bu ñu fàtte ni état civil u Cambérène ngay gis ni bokk na ci commune yi nga xam ne ñoo gën a dynamique ci wàllub kayit ku dëkk Cambérène bokkoo ko laajee dina la ko wax fii boo fi ñëwee huit heures huit heures et quart mën nga am sa këyit dem bokku ñoo yi nga xam ne dañuy déposer tey xaar pratiquement ay ay ba wala ba suba loolu loolu loolu boo xam nga tey boo ñëwee këyit da fekk ñu nekk ci grève mais bu dee kayit yi laa wax boo soxlaa kayit tey buñ grèvee tey yónni leen ku dem leen ba ñëw ngeen taxaw fee ngeen yónni nit ñu jox ko këyit ñu ko demal utal ñu extrait nga xool danga ci jot bokku ñoo ñi nga xam ne dañuy joxe rendez-vous une semaine wala deux semaines ci jour bi da am sa këyit kon pour wan ne Cambérène dynamisme moom am na waaye loolu bu amee nag lan moo ko waral ay agent yuy liggéey maire bi nga xam ne bëgg na dëkk avancé maire bi nga xam ne bëgg na commune dynamique mais ñooñ di liggéey nag mérito nañu ñu satisfaire leen bile ndaw ñëwoon ci bile maire ngir jël ci ay kayitam waaye jafe na lool ngir mu jot yooyu la kayitam gannaaw ba nga xamante ni yile gereew daal dina wéyandi. dama ñëwoon jël si extrait ndax damay football dama soxla woon extrait ma ñëw ba fii ñu ne dañoo grève liggéeyuñ waaw. naka nga gisee grève. waaw grève bi tamit dafa yàgg depuis boobu léegi te nit ñi tamit dañuy soxla papier imagine toi ñu war a voyager ak ñu war a football ak yeneen ak yeneen si dëkk bi te mënoon def dara sans papier ak ñu war a liggéey léegi su mairie après tamit ñun. à la fin am fuñ fuñ fuñ lijjantee ay papier te papier tamit dafa bokk tamit si nit si doomu en plus grève bi tamit dafa yàgg dafa durer dafa durer tamit. yaakaar ne moo war a nekk solution bi. solution bi mooy mairie ak état bi ak ku mu mënti doon ñu jéem a trouver benn benn point d'entente xam nga jéem a résoudre seen problème après ñu continuer liggéey waaw. fii si mairie bu Cambérène ñoom ñu ngi continuer di wéyal seen i grève tey xaarandi ba xam saafara dina am. ah non du promettre état promettrewul état dafa nangu décret la bu génn ba pare bu ñu signé ba pare léegi appliqué kay ngay wax applicabilité mooy am mais loolu signé na ko signé na ko ba pare léegi nag ñu appliqué ko moo des loolu la mais du promettre du promettre mais attends l' état c' est état kan la mooy ñun c' tey eh, bu ma xoolee sama mbokku enseignant yi xam naa bu ma xoolee man maa ngi ci. millier bi damay jàngale je suis professeur quelque part dans le privé di daw di dem di ñëw des fois di encadrer ni ñi xam naa luy jàngale xam naa jàngale nan la amee solo ci àdduna mais bu ma xoolee sama mbokk enseignants yi mais ba ñu xeexee am nañu lu ñu bëgg a am avancé mais ñooñu fu ñu demee ba am li ñu bëgg am mais ña ñuy jàngal fii la ñuy utee kayit ñii it buñ leen laajee buñ leen demandé yenn yi war na mën a nekk. bon yàlla na état def dara mais prochaine état yaakaar naa buñ ci tegaatee dara dina métti trop ndax boo xoolee xale yi. ñii nga xam ne dañuy ut si extrait pour dem fubali wala ay test ñii di wut extrait pour am bourse ñii di wut extrait pour dellu feeñ jóge ñii jóge extérieur dellu si pour ñëw dellu ay titre de séjour ak yëpp yaa ñaanuma yàlla ñu tegaat ci leneen non instant bi revendiqué bi amatul dellu ginnaaw mooy maanaam grève bi dem nañ xam nga grève day commencé grève deux jour grève benn fan grève ba am benn fay benn tey mais tey jii boo xoolee nekkatul pratiquement def nañ lii wala def nañ lii fi ñu toll mooy lan fi ñu toll mooy jamono ji grève illimitée te quand on dit grève tout dire il faut que am sinon duñ liggéey waaw dëgg la xam nga jamono dafa dox tey boo gisee ñu naan modernisation de l'état civil donc euh, programme d'amélioration et de modernisation de l'état civil PAMEC amoon na fi temps yële mais tey jii boo xoolee Cambérène dafa nekk état civil ba nga xam ni ci loolu la musa ne ñun bokku ak mairie yi nga xam ne da ngay ñëw ñu lay bindal loxo ñun da ñëw programme tout est dans les machines ñu tiiree la ci saa si lu tax man la 15 minutes mun nga ko am il nga déposer ak sa numéro léegi ñu programmé tiireel la te teewul tamit loolu lu ko indi mooy li ma wax tey boo gisee am nañu maire ba nga xam ni dafa miser si état civil maire ba nga xam ne dafa bëgg état civil bu dynamique bëgg état civil bu moderne pare na pour lépp jamono jii fi ñu jëm di nga gis portail ya nga xam ne nit dina nekk Europe sax bëgg mi dara mi Cambérène programmé ko ñëw ñu indi ko ñu yóbbul ko ko ba këram foofu la maire bi bëgg a àgg population bi modernisation état civil loolu yëfi maire la te te mi ngi ciy dox bien vrai que boo ñëwee léegi xam ne one est moderne mais bëgg nañ dem ànd ak technologie ak nouvelle génération yi ba fu ñu jëm voilà. mboolem yu nekk ci Sénégal daldi daal ñuy nañuy wéyandi seen i grève gannaaw ba nga xamante ni ñu doon sàkku ci seen diggante ak gouvernement bu Sénégal ba léegi matagul tax na ñiy wéyandi seen i grève saa su nekk. tey xamle bu baax seen i càkkuteef mooy li leen soxal. ñu yokkal leen seeni salaire